commune Jaxaay bi ñu yëgal li ñu taxaw ut bépp matériel boo xam ne jàpp nañ ne mën na accompagner xale yi comme classe d'examen yi ñoo war a dem classe le 2 incha allah xam ma kan mais commune Jaxaay jël na matuwaay bépp mu war a jël moo tax tey ñu taxaw jëndul mat 12 thermoflash yi nga xam ne bii bëgg nañ centre bu ne ñu xam ne ñi koy dugg xale yeeg ñëpp dañ xam niveau bi ñu am seen santé fu mu toll jënd ay gis ngeen ko ay barigo pour lave des jënd ay masque pour que ñu ñu jël seen seen seen matuwaay loolu nak buñ ko défé jënd tamit ay pompe pour centre bu nek centre bu nek ñoré sen sen sen sen pompe yi di di di pomper loolu suñ ko défé aussi jënd sabu jënd eau de Javel jënd léegi préviseur mi mooy wax né ma soxla nañ même ay foulard ma ne ko défé na né bu yalla défé jamm bu dee fulaar rek la ci manqué dañ ko motali fi ci commune Jaxaay moom xaw fan mais le 2 inshallah allah rabbi lépp lo xam bi bëgg ngeen ko président bëgg na ko ci sama dep commune mom dina ma fekk. ma jébbal leen ko bu neexee yàlla suñu borom di ñaan yàlla suñu borom feebar bi fi dugg nag yàlla na fi jóg parents d'élèves yi ñu gëm xam ne rek lii jaxaay def moom la ñëpp yi def moom la président santanet dañ ko def toppatoo xale yi too ñeen di jàngal toppatoo ñu fay liggéey ba jàmmam ndax njàng mi dafa war a continuer yàlla jële feebar bi yàlla jële ko adduna bi yëpp rawatina Sénégal